my prayer. jërë ngeen jëf ñoo ngi dellu di am mbégte di ànd ak yéen ci rajo Futur Média dellu di am mbégte di ànd ak yéen ci xalaas suñu journal fait divers fii ci RFM lundi ba vendredi jaajëf Aliou Ba mi nekk ci machine bi jaajëf soxna Yacine Pouy ci digital bi gërëm nag sama waa ji bu baax a baax l'homme de Maroc l'homme de tous les temps le phénomène passe partout maa ngi lay nuyu bu baax a baax. dellu di am mbégte di ànd ak yow ci xalaas gi Ndiaye di la nuyu di nuyu auditeurs yi nuyu internet di ziar ñëpp ñëpp ñu ñu déglu di leen jàmm. jaajëf jëf waay. waaw li ma jaaxal mooy da dem Maroc. waaw ay ab diir la ñu ci teg buuru Maroc ñëw Sénégal loo fa def. maa ngi wax sànq euh, directeur ma ne ko. Eh. buur bi dafa ma am message ni ma dafay ñëw senegal aywa xam naa nag bon <laughs> du neex gëm nag waaye. dem naa fa daal dama faa def liggéey bu rafet buur kontaan ci liggéey bi ne dafay ñëw fii ba ci président Macky Sall wax ko ne ko ndaw la ngeen yabaloon ca Maroc def na fa liggéey bu rafet feeñal na fa yu bëri yu nëbbu woon yoo xam ne xamuñu ko woon te ko. Ah, est-ce que a njëkkee ci Youssou Ndour kon. bu dee dalay sant si rek yaakaar naa ci Youssou Ndour la war a mais léegi njiitu réew bu ñëwee dafay ñëw ci homologue après homologue bi passé ko témoin bi mu dem gis Youssou après Youssou gis ñu mu war a gis ñu woo ma man tamit ñu gis ma loolu mooy sa ordre protocolaire waaw ah d'accord gërëm partenaire yi ñuy gunge ci xalaas bokk ci Optique Vision Plus Sénégal ñu ngi leen di remercier bu baax a baax lunettes yu baax lunettes yu garanti lunettes yu yomb damay wax ne boo ko bëggee ci réew mi jënd ay lunettes te doo ci am dara lu la metti da ngay dem ci boutique yu Optic Vision Plus Sénégal yi mhm. da nga fa fekk lunettes yi nga bëgg cadre lunettes yi nga boo ko amul ñu commandé la ko ci ko ndax ay spécialiste ñoo la koy liggéeyal mais également ci njëg yomb lunettes yoo fa soxla nag accessoire lunettes yoo bëgg boo amee sa ay lunettes di jógee mu am lu ci yàqu jarul nekk di commandé accessoire wala ngay jaaxle ci fan laa ko mën a defaree demal ci boutique Optic Vision Plus Sénégal yi bi nekk fii ci VDN bi ñu am boutique bu nekk Mbour am nañu boutique Touba ci kër euh, fi nga xam ne moo di kër Mbay Fall boutique Optivision Plus Sénégal am na fa ñi dëkk Saint-Louis ak ñi dëkk Louga waxatuñu dara ndax ubbil nañ leen fu ci nekk boutique Optivision Plus Sénégal seen numéro téléphone di 33 821 54 57 77 479 63 38 établissement waa kër Serigne Touba Fallé frère kant ñoom ñoom ñi ci gaamu vite fait bu baax bi te garantie mucc ayib teg ci vite fait gaam la bu complète boo xam ne lépp lu nit di soxla ngir sa dundu neex waa établissement waa kër Serigne Touba Fallé frère andi nañ ko def ko gaam dama lay wax ne ñi ngi ci jamonoy sedd ñu indi crème main indi crème pied marché boo dugg boo laajtee crème pied wala crème main bu vite fait am na fa efficace na xeet gi neex na te tamit dafa maanaam euh, matière yi gën la ñu ko defaree. amul mm. benn benn jafe-jafe bu muy def ci ci ci ci yaramu nit ki ñu indi frotté bu efficace ñu ci ne cuuraay bant wala euh, li nga xam ne moo di cuuraay buy neexal kër marque vite fait yooyu yëpp ci gàm bi la bokk établissement waa kër Serigne Touba Fallé frère ngeen mën leen a jot ci 77 555 77 806 15 19 ñu jeexale ak bijouterie la rotonde bijouterie bu mag bi ci réew mi di bëggal nit ñi moom mi ci mbégte mu euh, baax mi ndax euh, bijou en or bijou en or euh, de qualité 18 21 ba 24 carats boo demee bijouterie la rotonde da nga ko fa am ay bijoux de de de de yu marque yu gën kawe marque Pomi Kawora Paola yooyu ci ay marque la yoo xam ne indi nañ ko ma la koy limel mais boo fa demee da nga gën a kontaan a gis sa bopp ci yi am ci bijouterie la rotonde ñu ngi rue Amadou Assane Ndoye immeuble

kii ren avec Orange également ñi ngi leen di remercier bu baax a baax ci partenaire mhm. ci ànd bi ñu ànd ak xalaas mais gunge gi ñu gunge waa Sénégal ci mois février bi mu di mois euh, Saint-Valentin euh, ñu tuddee ko Saint-Valentin deux point 0 ak ay ngañaay yu bari yoo xam ne indil nañu ko nit ñi ci seen euh, sa promotion Saint-Valentin 2 point 0 kii ren avec Orange jaa jëf ñoom jaa jëf ñoom ay ca jaajëf ñun tamit. di gërëm bu baax nag suñu suñu suñu suñu suñu suñu mbokki laayeen yi nga xam ne. appel bi waaw euh, xew-xewu diine bu mag te mag. Mm-hmm. Mm-hmm. muy tey di suba. Mm-hmm. ca Yoff Ngor Cambérène Jàmmalaay ci réew mi yëpp daal pour mu gën a gàtt. Euh, di ñaan rek euh, lépp lu ñu fa lu ñu fa ñaan suñu borom may ñu ko. amiin amiin te ñu yàgg ko féete nag ay ati at yàgg ko màggal ay ati ati ati ati. amiin amiin yàlla na yàlla na yàlla sàmm ñëpp. xam waaw moo tax. dama laa gis ak sama xel dem ci. chaque année damay dem ca. incha allah damay dem Yoff après ma dem Cambérène. incha allah waaw après ma dem ci xuntu ba. Hmm. Hmm. d' loolu jaruñoo jaay ñu ñu dëkk Yoff ak Wakam. jaay man nitu diina laa de nag maa xamul rek. nitu diina bu laxatu laa de. fu ñuy tàmbalee. baax na démb ci waxtu wii. ani Ababacar. moom laa la bëggoon laaj de. Hmm. <laughs> mais nag non fii nag moom pour ma sa décharge. waaw li ko téye du ci moom xam nga bésu diine su amee. programme Futur Média day ah, soppi xar kanam waaw waaw donc euh, fi ne bu ñu fi jugee. waaw Yoff. dañuy synchroniser nga euh, Cambérène Ngor. donc moo tax xam nga nag loolu nag mënut a ànd ak. Euh, àndul ak dëggantaan <laughs> àndul ak <laughs> dëgg dëgg àndul ak dëggantaan. ànd ak dëggantaan da naan mbalax yi dëggantaan moo àndut ak loolu. <laughs> TRFM. <coughs> fu ñuy tàmbalee. TRFM Ndiaye dem ci waxtu wi. waaw ñoo ngi toog fii di xalaas. Mhm. ñaari pas gàddu seeni saag di jaay parfum neuf heures pile plus précisément mhm. dugg ci benn multi service mhm. gis nga xam bii ñuy jaay parfum dañuy ñëw xeeñaral la pour nga échantillon daal effectivement na ko nit ñi bàyyi fekk ñaari waaye ci multi service bi mhm. xeeñal leen parfum gars yi taaxal ko seen sago paa yi di leen laaj xaalis gars yi di leen jox ñu leen di laaj gars yi di leen jox ba ñu egg ci presque deux millions hmm. démb ci waxtu wii laa la wax. ah ilaha bi client yi commencé dugg ci place bi bàyyi na fes gars yi mel ñu xamale ko. yóbbu nañ xaalis ba. dem nañ. ñu déglu déglu. ay 9 heures ci la ñaari gars yi ñëw dugg ci biir place bi quoi léegi ci lañ commencé di wax ak ñun ñu nuyu ñu daal comme si que la ñu puisalee parfum yi après ci la ñu xëy ci la ñu mel ni comme si que daal dañu gëlëmoon di laaj xaalis ñu leen jox affaire bi daal noonu la demee après nag bu clients yi waat di ñëwaat noonu clients yi ñëwaat commencé di ñëwaat noonu ci la ñu commencé di kiiwaat suñu xel commencé di ñëwaat xam ni que gars yi dañoo am quoi moom daal noonu lañ jox daal ba yóbbu xaalis mooy demi part ok mooy comme genre paay yor seen saa yi di jaay parfum ak euh, non jox ñëw ci ndëkku nañoo laaj gars yi ñuy joxe nañu laaj ñuy jox après daal dañu dañu comprendre ñu toogee ba quelque temps après am ay clients yu fi duggu taxaw commencé bëri daal ci la ñuy soogee comprendre te dañu xoolee gis ne xaalis su ma xalaas dégg nga Ndiaye léegi li ma jaaxal mooy hmm. doon naa comprendre hmm. ñu defal leen parfum pour ñu am échantillon xam le parfum bi di xeeñ. ñu foon ko. Hmm. daal di xëm. waaw xam naa ko. waaw mais ñoom bi ñu ko fóonee. xamuñu hmm. dañoo seen sago. Ah. dañuy mel ni comme xam nga gaa yi mën nañ def dara nuyoo la ko wala. waa ko ci ko wala yooyu noonu. njaay réew mii. Hmm? Ah, waa baax na. joxe loxo. dañ ko téye man damaa xam ne kat yu ñu ne corona baa ngi ci dëkk bi ñëpp téye seen loxo. dóor ko daa ngi ci dëkk bi ñëpp di joxe loxo. ba ba ba ba foofu amoon na ay caméra de surveillance. ah ci wax ji nag waxuma ko nag boo ko amoon na xanaa dina ma ko yónnee. adit ah, mais barab euh, lieu bu mel noonu ñu fay jaay ak di jënd ba som bu toll noonu. mën faa am hmm. donc war naa am aussi yenn garanti yi. ah naturellement. war naa am yenn garantie yi. naturellement moo tax dañuy sàggane gardien. Hmm. mais gardien lu baax la. commerce bu mu di nekk bu ko seen borom mënee dañoo war a wut gardien. Hmm. di ko fay lu baax. lu ko jar ndax peut-être paa bu ñu duggoon ci multi service bi xëy na mën nañoo nax ñi ci biir. Hmm. mais gardien bi bu bu bu gisee. soit dañ leen xàmme. wala hmm. mën na mën na leen a mënoon na leen a dimbale daal. identifier leen quoi. exactement. ay man yooyu sax moom même bu dul dara sax ay ñëw damay xeeñal parfum yi parfum da nga jënd ko fi ñu koy jëndee. parfumerie a naan waaye nit dañu wax dëgg maa ngi dégg benn benn benn histoire bu xewee fa la ca boori Ndofane xam naa ne après dinaa ko jéem a topp. Mhm. ñaari samba booy tamit yu dugg dajji benn kër fekk benn xale bu jigéen yegg ci kawam sàcc yi bagaasam ba pare jàpp nañ leen. ñi def loolu. waaw bi leen jàppee ndekk ci koñ bu leen dëkk. Ndofane. waaw Kaolack waaw. xam naa ne après naa ko gën a yaatal léegi léegi su ma paree bu soobee yàlla. ay ca kon ñu doxal. beneen dóor. bu neex. Ndiaye ñi dugg ci mais booy dóor nu mu mën a neexee. waaw mais xam nga xam nga dafa am xamante ni. amuñu xelu créer entreprise. Uh-huh. amuñu xelu business mais am nañu xelu dóor xeetu dóor yoo xam ne boo ko déggee da nga yéemu. Mm-hmm. xam nga Ndiaye ñëw dugg ci bus. Mm-hmm. fekk Mouhamed Ndiaye jël saagam def ci ay ordinateur am def ci ay xaalisam sama yooyu kon tataay boo ci duggee am na côté chauffeur fu ñuy teg saag noonu ko mm-hmm. nga teg ko fa moom mu ñëw gàddu benn saagam. toog ci wetu saag yi ba ci yàgg mu teg fa saagam jël sa saag yow ndeke saag ba mu fay teg sax moom du saagam saag bu mu sàccoon la jëlem te soxla ñëw remplacer ko sa saag dem léegi sa saag dooy dem encore remplacer ko feneen saag yi di tourné. te saag bu mu ci jël day récupérer mu ci soxla. ma utilise waat ko. pour sàccaat. ci oto yi lay lay am loolu. waaw waa ji ñu sàcc ko bàyyi fa beneen saag. mu jël saak ba woo kooku naa sama saak kooku nag ma doon sàcc sama saak bàyyi ko bàyyil ma beneen saak encore ku ñu woo nga wax loolu saak yi tourné rek. mais ba saak bi mujjee dem xaalis nekku ci woon. ordinateur nga ca ab étudiant la ordinateur am ay document lépp a ngi waa ji rocc yëpp yóbbu. <laughs> ñu déglu déglu. donc tey dama ñëwoon ngir tirer attention képp koo xamante ne si yaa ngi dugg ci transport urbain yi mooy tata yi nga xamante ne si ñoo ngi daw fii ci biir Dakar ci biir dëkk bi yëpp nag ci ligne yëpp pour ñuy def attention. ci ñu duggee ci biir yi di teg seen saag yi parce que am na benn sàmba booy buy dugg ci biir euh, tata yi bu duggee leen la fay def mooy day yor benn saagam xëy na def ci bagage yu ñàkk fayda bu duggee tegandoo saagam ak fi nit ñi di teg saag bu ko kenn bàyyiwul xel mu jël saagub jàmbur wàcc bu ko jëlee wàcc da ciy jël lim ci soxla matériel yi am solo yépp lay jël jëlaat saag boobu duggaat ak moom ci beneen kaar bu demee tegandoowaat ak ñëpp jëlaat fa beneen saag wàcc noonu la koy toppoo parce que man mii dama koo def def na ma ko jël sama saag bàyyil ma beneen beneen saak ma jël saak boobu visité ko gis ca contact ma contacté borom jot ko laaj ko ni ko da ngaa jaawale sama saak mu ni ma moom dañoo jël saagam bàyyil ko tamit ak beneen saak kooku tamit saak bi ñu ko jox contacté nañ ci jot borom moom tamit mun dañoo jël saagam noonu ma ko defee noonu la ko defee ñeneen man mii sama saak noonu la ko def jël ko jël lim ci soxla ordinateur mi ngi ci woon xaalis mi ngi ci woon ay yére ñi ngi ci woon ak yenn yeneen bagage ak ay document yépp mu jël ko jël lim ci soxla yépp tegaat ko feneen jëlaat fa saagub jàmbur noonu lay def ci biir kaari may tiire attention ñépp nag képp kuy dugg ci biir transport urbain nay bàyyi xel waa jooju noonu. dégg nga de. mais lor nañ ko de. nii lañ def. lor nañ ko de gis nga jël jël ordinateur u étudiant. Mhm. jël fetalu policier ñoo ndax maanaam li kim diir bu yàgg boo xam ne ay gëstu. Mhm. lor nañ ko de na ko dimbale indil ko ordinateur bi. kan bi waaw mais xam nga xam nga réew mi jamono toll na foo xamante ne ji sàcc ordinateur wala sàcc yenn téléphone yu cher yi risque la ndax xam nga lool waaw bu fekkente ne ki ko moom mhm. jaral na ko mhm. day métti waaye dina ci jot mm, da ko localiser waaw moo tax nag kuy kuy sàcc daa am xel waaw da nga fiy bàyyi matériel électronique parce que ngaa gis njaay sàcc bu sàcc ba ñëw delloo ko déedéet moom kay dañuy sàcc jël lañ soxla sànni li des jeex na maa ko sàccoon delloo si mais heureusement ba moom étudiant bi wax na waa ji ni muy ni muy ni mu ni muy. ni muy doxalee. exactement hmm. léegi nag dina tax ku dugg ci oto déjà sa saak jarul teg. waay saak mënul diisal borom. surtout biir Dakar. surtout saak amee yi jëlal nga téye ba wàccee wàcceek moom. Hmm. ñu dem feneen. dëgg dëgg Ndiaye. caam l'infographiste du infographe nag. Hmm. déedéet mais noonu la tuddee boppam. te am na fa daal benn page Facebook am la yor. Mhm. ne day jaayee téléphone. xale bu jigéen bi contacté Thiam Thiam na ko da ngay dugal avance. da ko contacté pour jënd ci moom téléphone jënd ci moom téléphone. Mhm. léegi nag fexe na ba teg na paramètre yoo xamante ne moom xale bu jigéen du ko mës a gis. foo am place Thiam ne ko Sandaga téléphone bi ñaata mënu ko cent cinquante mille xale bu war a dugal quatre vingt mille xale bi yónnee ko quatre vingt mille wéev Thiam bu xale bu jigéen bi woote Wave caam woote Wave ne dama ko jaay téléphone dafa maa bëgg a dóor <laughs> déggoo ma de waa Wave bloqué xaalis bi caam bloqué ndaw si di di di dàqante waa Wave pour pour ñu jël xaalis bi. pour ñu jël xaalis bi xale bu jigéen waaw xale ñu contacté caam caam ne ko demal RFI <laughs> bañ ci duggee nag ñun ba. expliqué gars yi def appel à trois pour moom caam ak ndaw si caam coupé waa Wave waaye yow na xam ne kii ab caaxaankat la ñu bloqué xaalis ba mais déglu ndaw si ak caam. affaire bi de demeewul nii lu du bi ma joxee numéro am whatsapp eh, whatsapp am ñu ñëw fii whatsapp mooy audio yi ma la envoyé nii rek ñu waxtaan man ko noonu tudd mun moom Cheikh Ibrahima Thiam la tudd sa place fan la nekk waa ji ni ma mi ngi fee Sandaga la nekk côté palais de justice ma ni ko en ah, d'accord ma ni ko man global aw ma ko par tranche laa ko mënee pour XR bi avance benn somme bi des ma fay que deux mois ba mu ni ma waa amul problème kon que je suis man tamit kenn demul ma des xalaatuma defuma dara parce que waa ji man wax naa ko sax si vocal yi nee naa ko man minu vente en ligne yi nekk moom mu tombte ma ba ni ma gaay sax dangay doy waa nekk te moom moo nekkoon sama dóor ni ma fotool sa pièce d'identité recto verso nu ma ko waxee noonu laa ko defee lenn bi desul lu dul ma koy dugalee xaalis mu jox ma numéro orange bi ñu doon déggante ma moom ma dugal ko dugal nga ji mu ma si expresso am ni ma léegi dama war a xaar pour demee ma ni ko demee nag dama ko dul xaar parce que léegi lañ waxante léegi bi ñu waxante léegi nga ma koy envoyé léegi mun ma day doo xaar ma ne ko léegi bu fekkee dem na maa ngi woo sama cousin vu que day def cag-cag kooku dina ñëw foofu mu jël si ko mun ma déedéet xaara ma génn xool gaa yi nekk fii xaaral ma génn xool gaa yi nekk fii ni woo ma ni ma xanaa livreur dina la woo ni la maa ngi lay indi li de ma livreur ba ma wax ne ko jox ma numéro numéro livreur bi mun ma ok jox ma beneen numéro fu may waatee waa ji mu mu bloqué ma Facebook si laa ma woo leen dinañ ko xamal ñu ma sii sii gis nañu signalisation bi waaye bloqué nañu compte bi bloqué ngeen compte sama xaalis nga transaction bi man maa ko def ñun dañ woo waa jox leen beneen version ma yóbbu sama lettre de récusation bi ma jëlee police yóbbu ko waa Wave waa Wave defal ñu di ko woo moom mu coupé waa Wave mu ni waa Wave ma indil XR jox na ma ka ma boo xam xamante ni daf ma jox léegi na wax livreur bu ma ko jox bi de un de deux lu tax moom mu filtre ma faire de trois lu tax mu bloqué ma lu mu tudd messenger nit bu jotoon ICR ndax dina comporté woo ko si nit xam nga ne desee nga ko xaalis ndax ICR yu jarul quatre vingt mille. léegi après da nga koy dugal su paree rek mu complété quoi su nekkee daal da ngay dugal soixante après nga dugal avant cinquante bu mat jox la téléphone bi wala jox la téléphone bi bu matee daal ay quatre vingt mille après ñu jox la téléphone. moom bi la des nga continuer di ko fay. non ñun bu ñu la ko sax dañ la koy ibbil léegi yow boo ñu envoyé mën nañ ko def à distance quoi da may envoyé sa nom ak prénom bi après yow ma kii bi quoi nga envoyé ma sa téléphone bi ñu ci bëgg a def ñun bi ñu ko ubbee bu ñu paree après dañ lay kii bi quoi numéro euh, kii bi ni koy waxatee mot de passe dañ la koy bàyyiwaaleel par message après boo jotee loolu mooy nekk sa mot de neexee nga modifier ko bu la neexee nga bàyyi ko noonu nan nga def mot de passe bu la neex. Ndiaye mais parce que est xam nga waa ji mi ngi toj dëkk bi. moom càmm mi. waaw parce que kii nee na def na ko ko. Ah. même gars bi mais du ci téléphone ci ordinateur la. léegi dama leen di wax damay dox benn affaire ñu bàyyi ko xel. Hmm. Sénégal yëpp nag même bu dul ci càmm mii nii nañu bàyyi ku ñuy séqal njënd ak njaay ci internet bi ñu laaj sa carte nga yónnee ko ko. Hmm. xam nga tax. Hmm. gis nga ñii di dóor téléphone yi ñuy yor duñ ci identifier seen tur. yaa ngi dégg numéro yi. duñ ci identifier seen carte d'identité carte d'identité jàmbur yi ñu leen di yónnee lañ ci identifier hmm. nañ bàyyi njëndam ak téléphone njëndam ordinateur njëndam nangam yónnam sa carte d'identité nga foto yónnee. léegi kon ñoom aussi acte bi ñu leen di teg maanaam li ñu leen di xelal moom la ñuy xelal ñi seen carte d'identité réer. ma donc ku sa carte d'identité réer demal nga déclaré ji ko police. su ko moy nit dina ko jël def fii nag ko su dul noona après yow yaay am problème. dégg naa am na ñoo xam dañuy xëy di wër ci côté am na yenn lii yoo xam ne dañu fa kaan da ko fa accroché. ko fa accroché waaw dañ koy jël identifié ci piste def ci tuuti doona dem seen yoon. am na ñoo xamante dañuy dem garanti ko loué ci. def ci benn location garanti fa carte d'identité ba dem seen yoon. merci donc pièce moom bu réeree demal nga déclaré ji ko. beneen bi tamit Mohamed. Mhm. yow boo amee benn plaignant par exemple nga joxe garanti sañ ngaa joxe kayitu jàmbur yow. comprendre ma comme nga am loo ma yoral war ma jox garanti. Mhm. nga dem jël passeport Yacine bi jox ma ko. déedéet. ñi koy nangu est-ce que ay nit la ñu tamit. Ah. <laughs> ñu dem gaaw balaa allo président si ñëw paa bi lu mu def. paa bi nag Ndiaye. Mhm. histoire bu xaw a bu xaw a doy waar la nag. Mhm. ñaari doomam ñoo koy wër. moom paa bi. waaw paa mi ngi dëkk Dagana mu am fa soxna am ak moom benn doom. jamono yooyu doom ji xale la. paa bi mel ni ku leen naawtale jógee Dagana dem côté Ndar. bàyyi fa doom ji. bàyyi fa jabar jeeg doom ji. bi mu demee côté Ndar aussi am fa jabar ndaw si wan lor avant xale bay juddu paa ba dem. jugewaat saint waaw ñu koy dégg ci géej gi euh, côté Guinée boori Espagne ñu xëy un jour ba 2014 rek ñu woo leen leen seen papa dee na. ah seen papa dee na gisuñu photo gisuñu papier de décès gisuñu bàmmeel en tout cas kenn woo Guinée la leen woowee. nee leen foofu la faatoo. waaw du dara nii leen ci tool léegi nag ñoom ñu dem ba benn moment seen frère papa ne leen man daal gëw ma ni paa bi dee na. Hmm. xam naa ay recherche ak affaire yooyu noonu ko léegi nag ci la ñoom ñaar jugaat parce que ñoom ñaar mosuñoo gis seen papa même bu ñu ko gisee foto xamuñu ko. te ñoom ñaar bokkuñu yaay. bokkuñu yaay léegi nag kenn ki bi ngi bitim réew kenn kaa ngi fii. mais paa bëgg a gis waaw. ñu déglu déglu. ci suñu pap parce que ñun daanaka xamuñu ko amuñu fotom xàmmewuñu ko bu taxawoon nii nii suñu kanam ñun xamuñu ko moo tax maa koy doon bàyyee loo xel sama rakk bi ne ko jàppale ñëpp man ma ma bàyyi lañ bokk ànd ak yaayam ba moom sama rakk bi judd fa léegi nag quelque temps sama rakk bi avant muy xàmmee paa bi dem comme genre luñ ko def di ko dem loo rek la na si géej doon napp di di napp bu demee maare dellu soit quelque temps nag mu dem dellu si nga koy dégg Espagne di ko dégg euh, Guinée di ko dégg fu nekk nga ko fay dégg mais ay dégg rek ngay am musuñu dégg sa voix musuñu am photom musuñu ko musuñu ko bu taxoon ni duñ ko xam mooy dama la doon wax léegi léegi léegi quelque temps ay côté fekk na sama rakk moom xale la woon te bu côté 2014 yooyu sax laa gën a sama rakk bi si ne sama papa am am na doom côté Saint-Louis boobu man maa ngi def quatrième collège si la toog di añ rek si sama rakk bi yaayam woo sama yaay ndax boobu ñu ngi amoon contact wax ko ni ko dafa ko ko woo ni ko paa bi décédé bu mu waxee loolu nag man si saa sama yaay waxul dara mais de par sa réaction ma nekk si baat sama sa moo décédé mun ma déedéet doo jàmm xaw ma sax lu mu ko wax loolu mais mais étant si jeune du la affecté tellement mais plus ngay dem am na fa fa di nga soxla sa àdduna ku la mën a guider parce que nit ku nekk bëgg nga sa papa nekk sa wet mais plus ngay dem amoo loolu yaay demal sa xelu bopp yaay nekk sa magu bopp loolu nag ñu touché man ak moom ba sama rakk bi muy moom ñu si échangé un jour nag ma wax sama papa rakkam ñu waxtaan mu ne ma paa bi ñu bëri ni xam nañu bu baax lu ñu fu ñu teg suñu tànk ñun ñaan ñëpp bu ñu bu ñu jéngoo suñu borom suturaal ba ñu comme quoi waa kat ki ñu annoncé woon décès bi ki ko annoncé woon maire bi ñuy jéem lijjanti numéro bi moo woote woon maire yi ne leen diw dafa décédé léegi nag ku décédé am na loo xamante ni baaxoon nañ ko xam mooy lan photo nit ki décédé ji nga nga envoyé ko wala aussi tamit nit ki bagage yi mu yi mu bàyyi wala aussi tamit lan moo te aussi tamit gis ñu acte de décès buy prouvé ni paa bi dafa décédé léegi nag ñuy dem nag ñu def benn discernement wax ne nañu jéem xool lan moo waral li ni mel ñun xamuñu ko bu taxaw nii nii nii amaana dañuy bës suñu xol ni kii mooy suñu pap rek mënuñu wax ni mooy ñu pap xanaa suñu woy jure wax ñu ko waaw ñun suñu papa mu ngi tudd Boubacar Mboup ñu koy wax euh, préfet il est plus connu sous le sous le nom de préfet daanaka ñu bëri loolu lañ koy woowee mais dëgg-dëgg Boubacar Mboup la moom mi ngi am ñaari banque Sénégal mi ngi dëkk Dagana nekk doom ci Amina Mbaye ak euh, Mass Mboup mi ngi jógee Dagana nag vers 1999 jàpp